Jafatela jërë ngeen jëf ba tey ñu ànd ki nga xamante ne mooy Ouzin production ñu jëm ci la le 24 ci diggante Ouz Garga ak ki nga xamante ne mooy Fils Sadio encore parcelle ak Pikine waaye nag combat ci biir combat ndax Thiatou Souleymane Diaw taxaw sama caa sama ndeyjoor waaye mu ngi daje ki nga xamante ne mooy clandestin <laughs> ci biir combat combat bu doy waar combat bu dara neex ñu ànd ak Ouzin production la le 24 nee naa la samedi bu leen ko fàtte Thiatou Souleymane Diaw nuyu nañu. waaw maa ngi nuyu yëpp di leen ziar di leen jox seen di wax Sénégal yëpp di len nuyu di len condamné dal di len ziar di nuyu sama adversaire bi di clandestin waaw moy mooy nonu noonu. mënoon ko tok rek liggéey mais nga jëm gaan gaay daw ñu ref ñu refulé nga daw dellu ci gaan ñëw dugg ci làmb ji fi nga dugg baxul sey baaxul. ki da bax rek nuyu nañ la aduna assalamu alaykum ma ngi siyaar ñëpp di nuyu ahlul làmb di siyaar kuluhum ma ngi nuyu wa pigine wax naan bu baax a baax di nuyu sama kosi ñom Seydou. ñoom Vandam Jos Toura Omar Diané nuyu ñëpp ay am di maa ngi siyaar ñëpp waaw di sama mi caat xam ni am na am na am na client bu ñu yàqalee fenn ah! barki Seydina damaa daar de damaa daar sama yaay dane ma téye sama bopp bañ maye ma dar me sama yaay dégg nga lu wax cat sama yaay nee na ma ma barki Seydina Muhammad dinaa la dóor bu la joxee banaan nga daa wow te yow lañ karim yaa ngi réer man waalo laa jógee je quitte à waalo sa ngaami wobi xam nga loolu am amoo ma la jàpp jël la barki sëñ Bamba xam nga yow yaa amul cër boo waxee da ngay noppi nit ñi wax da ngay comprendre bisu ñoo ko war a neexal dañoo fay xaalis neexal fii arène nationale le 24 lu fiy neex man maa koy dogal doo neexal gën a naqari yow kaani salaan nga nga may tëfli de. ay mais ma nga naa may tëfli ma lay du raw la gën a dopporo fu ma la borom ñii muy ñaamaa bi garabum joolaa lekk dee naan ko mandi. garabu ñii garabum joolaa lekk dee naan ko mandi borom mbëtër almaam bi damay tàng di monté. booy a dem si gaal yi trois fois ñu refoulé ma barki Seydina Muhammad ñàkk si xaalis bi weex tàll moo loolu ma dugal si làmb man góor jàmbaar laa man champion laa déggoo lu ma la xanaa billaahi fi nga dal baaxul. tourné nga jàkkaarloo. barki Serigne si fi nga dugg baaxul. waaw baax na yow bu ma. lu tax nga ne fi mu dal baaxul. fu nga fi billaahi fi nga dal baaxul man damay an dama am doole dama liggéey xale bu ndaw laa. Oh, gis nga tey jii bu ñu tëjee arène nationale damay dellu waalo. barki Seydina def. kii du def dara. billaay bu ma la jàppee. ca tango ñangu dama lay ñuus yow bu ma la jàppee dama lay news. doo def dërëm kii dama koy duma ba xool bi la mayonnaise dama lay nokku daan andale ba do mayonnaise dama koy duma dama koy mar dama sax waxu ñuus mais dama lay nokku daan yow bu ma la jàppee <laughs> yow li nga wax ni ñëmewoo ko amoo doole barki sëñ yaram yaramu ngooñ la da ngaa jaay ngooñ waaw jërëjëf moom ciment lay jaay kii dama koy daan bu la jàppee sama terrain sax sama terrain bi su ma koy tabax damay ñëw nga jaama ciment parce que ciment fi muy toll si 3750 dama ñëw nga jaama ko caat yemal baax waaw man sama wax du si bare man kenn xamee ma wax. ni ngeen nekkee nii di wéj. mais foog ngeen neexoo ko man kenn xamee ma wéj wéj yu bare man bu ma laay bu ma la jàppee. kii son kii def dara. man waalo laa jógee man Pikine laa dëkk maa woo waa Pikine ñëpp. barke Pikine waxi naan woo ñëpp ay Lucien maa leen woo Isaaka Diop. maa woo Mbaye Ndiaye man Pikine Zil yàlla na ko may ndam grand Zil man Pikine laa dëkk. Pikine ñoo téye lamb ji ay xale yi am doole fa nekk mën a bëre barke Seydina Muhammad. man waalo laa jógee. jom ngor fula ak fayda. waalo laa jógee di jógee géejawaay man waalo laa dëkk am naa fulla am naa fayda am naa jom. dara géejawaay Pikine géejawaay Pikine xam nga nu muy demee rek. nan lay demee comme seen Balla Gaye bi rek. Ah! waaw barki alxuraan karim caat bu arbi ne pip foo ne ma fekk la fa. foo ne ma fekk la fa te billaay dama koy mar. si arbitre mu ni la. Ah, ah, yow man booy booy da baax booy njool bonul du lu baa jëfe rek. barki Seydina Muhammad damaa dof de booy. yow dama toog répété say wax lu may wax nii soxna si lu may jëf la. lu may wax nii lu may jëf la. sama sama jaaxal koñ maa may jiite suñu jaaxal koñ maa may jiite suñu jaaxal koñ maa may jiite. yow doo dërëm. caat yemal. caat yemal maa ngi woo ñëpp nag. maa ngi woo ñëpp di sant Ouzin bu baax a baax a baax barke Seydina ma yàlla na ko yàlla jàppale muy tëgg ay journée yu am doole. Ouzin jàmbaara champion la mi ngi jàpp xale yu baax di sant Mbaye Ndiaye bu baax a baax Isaaxa Diop maa leen sant bu wér a wér maa ngi sant ay Louvain yooyu ñëpp maa leen jàpp képp kuy jàpp booy clandestin maa lay sant bu baax a baax di naan waa waa Pikine waxi naan mafia bi maa ngi ñaan ñu incha allah le 24 ñu jàpp ci def combat bu rëy ma jàpp caatu Souleymane Diaw mi jàpp ko daan jël bu rëy barke Seydina Mouhamed yàlla nañu yàlla may ndam. man comme comme mu demee rek maa ngi woo Waalo di di woo ñaari Baye Fall waa Arafat maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo samay mbokk sama samay mbokk yi bàyyi yi nga xam ne su ma limee damay juum du jaw sama mag yi dañuy sonn ci man jëw mbay jaw Diaw ma koy ñaanal jàmm waaw Jackson ma ko si woo bu baax suñu garaaw bu baax la mu ñuy jàppale du ñu ànd ak ñun entraînement ak lépp di woo sama waa équipe yëpp Lamine Golo Mbës par Père Mbaye Samb ñëw yëpp ñu leen di woo di woo samay mbokk ku si mel ne ni yaay Ablaye Cissé ni yaay maa Ousmane Cissé ah, ni yaay Xaali Cissé borom euh, waay dëkkam euh, dafa xaw a sore nag xaw ma dëkk bi nu mu tudd moo koy fàtte maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax di woo Yoro Jaw Yoro Yoro Jaw di woo waa waalo yëpp ma doon wax dëgg yàlla tamit di gërëm Ousseyn bu baax a baax di waaw amu fayam Ousseyn wax dëgg yàlla amuñu fayam ñun bëri ndaw yi amuñu fayam di wax état bi naka gestu jàppale nga génnal ko ay subvention parce que Ousseyn lu muy tëgg ci làmb benn promoteur tëgg ko ci làmb waaw kon état bi war na ko subventionné muy tëgg làmb bu baax a baax di woo Pape Gueye borom méda Pape gay borom Meda ñi ngi lay wo ci combat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa di wo Amadou Man job ablay Seydi Ba borom saa tol ñi ngi lay wo di wo di waa di wo lamb dal di wo commune de Mbane yëpp ki nak mom li wax wax ko bu nopi man walu la joge talata yi ndeer doyna bari jom bu ma la jàppee dinaa la nok dal la. jërë ngeen jërë lamb yo do def dara. taxaw len ngeen photo taxaw len